Covid bi bi mu amee euh, bari na ay temps un an derrière deux ans derrière vous aviez encore le contact avec euh, Macky Sall les relations permettroon na nga mën di waxtaan ak moom xalaatoo ne vous avez tout intérêt à rester à garder votre objectivité votre neutralité pour que nga mën a am posture boo xam ne di nga ci mën a waxtaanee ak Macky Sall xëy na. yow tey boo mënoon a rétablir le contact ak Macky Sall di nga dem tegal ko situation bi waxtaan ak moom ci mbiru Ousmane Sonko j'ai vu que tu as fait euh, tu es revenu sur toutes les arrestations les conditions dans lesquelles ces jeunes ont été arrêtés tegal ko situation yi ñaan ko mu mu mu élargir gars yi xalaatoo ne boo amoon posture boobu ñoom buñ ñu la soupçonné woon de partisanerie ci ngay gën a mën a obtenir euh, certaines choses de l'État et de et mais man loolu rek laa bëgg. <laughs> mais toog ko am de. gaa yi la ñuy a gis. y' a pas problème su ma ko amul ma xam ne aw ma ko loolu dinaa wax sama bëgg-bëgg. moom laa bëgg bind naa ko et puis man sama sama sama sama li li nga xam ne moom laa doon gàtt nga ba xam ni euh, teg nañ Africa Jom Center c'est un pour dimbale état yi parce suma rapport yi mënuma la wax succès bu mu am moo ko dëgg Afrique centrale wala Afrique australe ni ñu koy xoole parce que en réalité li ñuy def presque <laughs> lu bees la en tant que euh, think tank ak ONG donc man dama ne euh, Macky depuis mu ne deful troisième mandat man pare naa pour accompagner ko loolu laa wax. ah mais lance-lui man koy pare naa pour accompagner la man waxtu boo ma gis nga waxtu bu ma soxlaa. au contraire damay daw <laughs> su ma makki ne Alioune Tine defal soxla ñëw damay daw ñëw fekk ko ñëw waxtaan ak moom donc parce que j'estime que am na am na ay failles yoo xam ne am na dans son entourage et c'est et c'est manifeste am na yoo xam ne da koy gis da nga ne mais ce n'est pas possible bu fekkee ne am na ay nit ñoo xam ne dañuy réfléchir mais duñu bàyyi président bi def ni muy def nii c'est pas possible c'est pas possible ah, il y a des failles énormes si bien que tey bu fekkee ni dangay xool rek un horizon d'ici 2024 dara leerul c'est pas normal dara leerul c'est-à-dire horizon 2024 uh -huh. on est à quelque à combien de mois de, de la présidentielle six mois kan nga gis mu jig mu génn ce n'est pas normal alors que moom dafa war a am une sorti vraiment exceptionnelle kooku dama ko wax dama ko ko dama ko yàgg a wax sax mu yàgg ni moom dafa war a xam nga tey amuñu amuñu un leadership africain bu génn bu fël Macky c'était celui qui devait porter ce leadership là Macky ça que tey on avait tout misé sur Issoufou il peut plus ça s'est effondré déggoo ma ne il n'est jamais trop tard pour bien fair chaque fois bu ma bindee loolu lay wax il n'est jamais trop tard pour bien faire moom am na ay capacité xam naa ci dara pour faire la paix au Burkina ci euh, gannaawam sax dem na man ma dem njame N'Djamena toog waxtaan ñu ne ma sa président ñëw na fii def na lii def na laa def na laa mais j'étais fier j'étais content donc am na ay capacités yoo xam ne mun na ko def ci loolu nag ci la waroon a jublu tey problème yi nga xam ne am nañu Niger euh, tu fais mut baan moo génne benn article bu fantastique bi ñu ne na CEDEAO kii mu ne Macky yow sa liggéey moo doon diplomatiquement nga dem régler problème boobu te su ko suñ ko ko joxoon mu régler ko suñ ko ko joxoon mu régler ko loolu moo tax ma ne entourage aussi bien au plan diplomatique qu'au plan politique sur place franchement sur le plan de la stratégie sur le plan des trucs na bàyyi xeex bi ak xuloo di ko xuloole di xeex ak moom loolu du cëru Macky Sall Macky Sall li nga xam ne mooy cëram tey mooy fexe ba nga xam ne réew mi dafay dal fexe ba nga xam ne sénégal yi dinañ juboo fexe ba nga xam ne dina indi laa biir ak yërmande nga xam ne day génn Sénégal nekk réew moo xam ne day sedd guy parce que tey su génnee ak ku mën a jël Sénégal ci réew mi fu mu tàllu nii ci coono bu rëy ngay ne pour gouverner ku mënti doon nag donc loolu pour ñu def ko il faut ñu fexe ba nga xam ne nit ñi dañuy juboo nit ñi dañuy waxtaan. ci liggéey boobu la ñu nekk mu nekk liggéey bu jafe parce que. <laughs> parce que bu fekkee ne nit ki da nga ko da nga yeewu suba rek nga jékki-jékki sax saxal ko ay béjjén. sa imaginaire. mais mais mais quel est le prix fii la ñuy ñëw ne la Alioune Tine trafiquant d'armes xam nga loolu imaginaire bi nga yi yi ñu am ñooñu bu ñu jegee Macky Sall di ko naan dañ koy waxal mais c'est pas possible cest à amuñu culture xamuñu sax ay information yoo xam ne c'est des informations historiques tey na demande général Fall ñun lan la ñu liggéey sur la Casamance Macky xam na ko. parce que liggéey naa ko moom ak Abdoulaye Wade sur la Casamance. donc bu fekkee ne ay information yu mel noonu ngay génn ñi ñu taxaw naan maa ko fekkee 1990 la te xamuñ ci dara. mais mënuloo nekk ministre de point de vue. nga de ministre te amuloo ay capacité d'analyse xam lan moo baax ak xamuloo sax naka naka la ñuy jëriñoo Alioune Tine j'estime que loolu rek.